màggal Touba dafa dem ba nekk événement bu nga xam ne sax dafa daal di jégg frontière Sénégal daanaka fépp daal nañ koy daal di célébrer ba tax na dimension bu am solo ci àdduna wërkal këpp ñu gis tamit ay junni junni doomu aadama ñooy bàyyi ko fu ne ngir ñëw daal di yaa magal fi nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ba tax na ndono li nga xam ne kat bàyyi na ko fii bëri na ñoo xam ne kat ca la ñuy tànqee ñoo xam ne tamit muy ndono lii ñu gis ne ci boor boo jël rek ñu bëri ñoo ngi daal di am ak jàng lañ ci mën a jàpp daal mooy ne xaadim rasul ci liggéey bi nga xam ne amal na ko loolee kat laal na domaine yu bëree bari lu ci mel ni kat wàllum diine ji wàllum soufisme wàllum teggin ak li nga xam mooy wàllum culture waaye tamit boole ci liggéey liggéey ak tamit jaamu yàlla ba tax na li nga xam mooy màggal Touba bi nga xam ne daal la ñuy célébrer mooy gàddaay ak Cheikh Ahmadou Bamba loolee nekk na jamono ju nga xam ne kat xel war nañ cee mën ji xalaat waaye tamit jàppes ni loo xam ne kat moom liggéeyal na borom bi ci génération boo mëntu jël xam ne ñoo ci rombe ñoom ñëpp gis ne kat portée historique bi nga xam ne ko projet de société bi nga xam ne dafa daal di ràngoo ay valeur ay valeur religieuse maanaam jaarle ko ci jàngaleeg l'islam ak li nga xam ne tamit lu bëree bëri la ci doomu aadama ak ci nekkinam ak courage am ak pasteefam ak tamit nangoo liggéey ñu gis tamit Touba nekk nañ ci ñaareelu dëkk bu nga xam ne moo gën a mag ginnaaw Ndakaaru foofee nag la mu a féetee ñu ngi sa tamit doxalinu murit ji ci wàllum suqali am réew loolee dafa nekk kone bi nga xam ne mën cee jaara tabax ci nit waaye tamit daal di sukkandiku ci jàngalee lislaam ak it ci wàllum entreprise bi nga xam ne moomeekat day tax ñu gën a suqal am réew waaye ci nga xam daal am na influence murit lool ci domaine boo jël ci ñàng meek ñàngale mi ak tamit lamb sapos joxe ngir rek liggéey Cheikh Amadou bam ba ba tax na gis ten ne ci université Sénégal boo jël ak ci réewum Afrique yi ak ci nga xam ne kat mooy àdduna bi yëpp loolu fa dem ra di nga ko fa fekk kon fexe ba tee li nga xam ne mooy suñu fukki yoxoon ndoonoo li nga xam ne mooy ñàngaleem Cheikh Ahmadou ba loolu tamit moo war a soxal ñëpp ndax pouvoir public yi war nañ cee mën a jaare lu ci mel ni kat xalifa général des mourides di sëñ Mountakha Mbacké moo tax mu tabax lii nga xam ne mooy Touba ak la ko wër na sonn na ci loolu waaye tamit lëkkaloo ci état ak ci ki nga xam ne communauté religieuse la pouvoir public yi tamit war nañoo envisager maanaam nas pexe yi nga xam ne war nañ koo gën a mën a développer jaar nag ci wàllum politique publique yu dëgër këng waaye tam yu am solo lool jëmale ko li nga xam ne kat mooy cité religieuse yi maanaam béréb yi nga xam ne ñoo nekk rek ci euh, Sénégal rawatina tamit ci jàngu bi développement ci li nga xam mooy capitale religieuse ak ci wàllum tourisme religieux loole tamit war na nekk kanoy bu nga xam ne war nañ cee gën mën a jaarale ak béréb ya nga xam ne fa la xalif yi nekk ak li nga xam ne mooy jàngu bi waaye tamit ak ci protestant yi waaye leneen gën a soxal mooy tabax tabax ay communauté yu nga xam ne ci nation sénégalaise bi lay sukkandiku mu nekk ay canaux yu nga xam ne day gën a wasaare liggéey mag ñi ñu gis tamit ci liggéey mag ñee ca la ñu sukkandiku ngir mën a defalub réew lu ci mel ne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké